ginnaaw seen jongante bu ñu amaloon ci dimanche bi ñu génn ñoom ak waa pour le trophée des champions moom Paris Saint-Germain bu Idrissa Gana Gueye nekkee foofu ca France dañ leen a làbbali benn bal ci dara waaye nag si jongante boobee sax nemmeeku na ci kii di doomu gaynde gii di Idrissa Gana Gueye nekk nag international sénégalais gisuñu ko sa jongante ba lu ko waral nekkul lu dul lii di coronavirus ñu ko naan mbas bi ginnaaw bañ koo testé li nga xamante ni mooy positif bu coronavirus international sénégalais bii di Idrissa Gana Gueye bokkul woon sa jongante ba mu xamante ni di waa pare Saint-Germain bëggoon nañ ko lool ndaxte moom moo waroon nekk première trophée di Pochettino ki nga xamante ni mooy entraîneur bu bees ba waaye nag ñi nga xamante ni ñooy waa Lille mayuñu leen dara ñoom nag joxe nañ jusqu'au fond ngir jël coupe boobu waa Lille ñoom ñoo mujjee daan ñii di waa Paris Saint-Germain bu sa Gana Gueye benn bal ci dara mu doon naqar bi nga xamante ni Idrissa Gana Gueye amoon na ko même sax bu fekkee ni dafa waroon bokk ci jongante ba bokk ca ndax li di mbas mi moo ko mujjee dab ca match boobee ñu doon amal fële ca Israël lu ko métti moo nekkoon capitaine équipe ba si match xaritoo yu ñu doon amal ñoom ak yeneen équipe ku si mel ni sëñ yi nga xamante ni dañoo témboo woon ñaari bal si dara Idrissa Gana Gueye international sénégalais boobu sax dafoon ca match bu am solo Paris Saint-Germain ak ñii di waa Lille mu doonoon seen dernier match bu ñuy amal ngir waajal li nga xamante ni mooy saison 2021 2022 nga xamante ni samedi bii di ñëw la koy dëgmal si trophée des champions boobee sax ginnaaw ba Idrissa Gana Gueye amee li nga xamante ni mooy coronavirus kii di Pochettino dafa lu dul remplacer kii di Idrissa Gana Gueye ki nga xamante ni mooy Danilo di portugais boobu ak ki nga xamante ni mooy Wijnaldum nga xamante ni bokk na si transfert yi yees yi nga xamante ni waa Paris Saint-Germain defoon nañ ko Wijnaldum doon joué fële nag ca Angleterre ci équipe bu ñu naan Liverpool bokkaloon nag équipe ki nga xamante ni mooy Sadio Mané di international sénégalais kenn kii nag di Idrissa Gana Gueye doon amal ay jongante yu am solo fële ca Paris Saint-Germain nekk ca France ki nga xamante ni mooy Pochettino amoon yaakaar torop si moom waaye nag Idrissa Gana sa jogante boobu Idrissa Gana Gueye moomee yi nga xamante ni mooy jogante xaritoo yu ñu doon amal avant match bii nii di trophée des moo nekkoon brassard ba maanaam moo takkoon brassard ba nekk capitaine ba lu jiital xale yi Paris Saint-Germain yu doy waar waaye nag nemmeeku nañ ni Idrissa Gana Gueye bokkul si jogante bi nga xamante ni moom la Paris Saint-Germain amaloon fële ca Israël ak Lille ngir trophée des champions boobee sax nga xamante ni Lille da leen làbbali benn bal